salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi nga xam ne yéen a baaxoo àndoog ñun bi ñu seetaan fu ngeen mën di nekk ci àdduna bi ci biir réew mi bitim réew fu ngeen mën nekk ñu ngi leen jaar euh, tey nag euh, dañoo ñëwaat foo xam ne ni yàgg nañ fee ñëw tey ñu ngi jàkkaarloo ak loo alalu Serigne Saliou ma fi waxoon wax ju rëy ja ci Coupe d'Afrique bële jàll ren looloo waral tey ñi ngi jublu kan bi ñu war cee dugg le première janvier tey tey le premier janvier lañ fi ñëw. di enregistré émission bi mu war a tàmbali kan bi war tàmbali le treize. sëriñ loo tey bu ñu la ziar ginnaaw bu ñu la nuyoo ñu ngi lay ziar ci fekk ji gi ñu la fekk si tey fii nga xam moo di sa bërëb. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal sama ñaari waajur ak sama soxna ñu yàgg fi loolu te ànd na ko wér. di ko ñaanal xalifa général kullu murid Cheikh Mouhamadou Mountakha moom Serigne Bassirou di ko ñaanal xalifa Serigne Saliou Mbacke Serigne Cheikh Mbacke Serigne Saliou ak njabootu maam borom Touba gépp ak xalifa Baye Fall li di ñaan ñu yàgg fi lool te ànd ko wér ci barkeb Serigne Saliou. Euh, mu mel ne ku la jàll dañ cee jëloon ay engagement wax ci lañ ci wax kenn yóbbuwu la ci waar nga dem jëli coupe bi andi ko ren ñu fas yéenee dégg ma la de Afrique waaw li ma ciy wax mooy naruma ci woon sax àddu ndax daaw ku ne gis nañ ñu def ci loo xam ne dañoo waxoon escore yëpp na mi demee mu indi coow lu bari ci réew mi euh, nit ku nekk di ci wax sëriñ su bari di ko jëlaat di ko partager ak di ci wax lu bare bari. waaw ren li ma leen mën a wax rek comme ni nga ko waxee léegi tey doon le premier janvier 2024 euh, tey le premier janvier 2024 kan bi war a tàmbali le treize euh, kon bu ko defee dana dikk ak yéen ci li ma leen di wax tey ci score yi comme ni ma ko defee woon loo xam ne lu leer lay doon waaye bii yoon day am wuute ndax bee passé wax naa leen ba wax leen ci demi final bi final bi rek la waxul woon waaye bii danaa leen wax ndax ku bi dana ñëw wala du ñëw wala déet ba pare danaa leen wax premier match su Sénégal ni mu demee ak deuxième match su Sénégal ak troisième bi biir poule bi daal incha allah. Ah, Euh, waa man nag xam nga kii wax ñu lay waar day fekk yow da ngay seet di gis xam nga sëriñ su bari li leen di daaneel mooy danañ seet gis waaye dañ caa ñaanu lan gis mën la leen a nax ngir la leen di ñaan ñun nag dañ ciy seet gis ba pare ba pare di ñaan équipe bi nationale di gagné moo tax ñu am sañ-sañu génn di wax escorte kenn du ñu ci waar. ndax bu ñu ñaanee yàlla dana ko nangu te dañu ko defal la yàlla mayoon bu ko nangul naa leen wax score yi te dara du ci dañ incha allah rabbi soobee yàlla te règlement ku ma waar te kenn du ci waar euh, première match sub Sénégal ku mi am du Gambie Gambie incha allah bu soobee yàlla danañ ko dóor 3-0 euh, danañ ko ko dóor bu soobee yàlla noonu la demee nii laa ko waxee woon daaw de ma mën a jàpp mooy première match sub Sénégal 3-0 ko dóor te. benn nit ki dana dugal ñaari bii te beneen bii bi tamit dana dugg ci première mbitaa bi danañ teel a tàggoog moom incha allah deuxième match bi euh, ñun ñu ngi am Cameroun euh, ñu bari di ca tiit tamit danoon ko dugal 3 bi match boobu tamit 3-1 lay doon deuxième mbitaa bi mooy ëpp bii bu soobee yàlla. Ah. waa non xam nga waa xam nga daaw waxoon naa fi te yàlla dogal score yi demee noonu kenn waaru ma man du ma waxantu ndax nee naa leen ñun nekkul ne dañuy seet rek gis ko maanaam dañ ci ñaan def ci te suñu borom da ciy jàpp ne ci kàttu na suñu borom moom may dogal mooy Cameroun incha allah dañ koy dóor maxu bi 3 un lay jeexe te deuxième bitaa bi muy ëpp bii suñ dernier maxu moom presque du am sens boobu moom duma ci ñaan waaye soo moytuwul sax mën nañ cee niil nag moom waaw ba ci gisagul ñun ak Guinée mooy dañ ciy niil wax dëgg fa ndax man moom duma ma ca ñaan nag wax dëgg fa yàlla ndax max boobu jour bi mu tombeel day fekk bis boo xam ne dama koy def loolu moo tax waaye ca la ma ca gis mooy euh, amuluñu solo waaye gëm naa ne mën nañ caa niil wala ñu dóor ñu waaye gisaguma ca ndam ci max boobu euh, bu ñu demee ba génn suñu poul tamit euh, ëllëg ñun ak naar yi mën nañoo dajee comme ku mel ni Égypte maa ngi koy gis ci kaan bi ñu dajee waaye li ma leen mën a wax rek Sénégal yëpp dalal ci seen xel mooy incha allah rabbi soobee yàlla na ma leen ko waxee woon daaw noonu laa leen ko waxaat ren 2024 kaan bi danaa ko jëlewaat Côte d'Ivoire indiwaat ko Sénégal danañ jël coupe d'Afrique incha allah. Euh, waaw mais xam nga man du ma waxant wax dëgg fa yàlla et puis tamit rëgalu ma waar. wax naa leen ko te man bu demee ba demi final final danaa dem Abidjan mais li wér te wóor mooy incha allah na Sénégal yëpp jëndi moyen jëndi drapeau coupe bi day ñëw Sénégal incha allah bu soobee lu ma man danaa ko ci def te danaa dem te danaa ñaan yàlla te jàpp na ne bu ñaanee yàlla dana ñu ko may te ci kàttanu suñu borom jàpp na ne loolu dana am bu neexee yàlla te ni mu leen waxee ci résultat max score yi noonu lay demee tey doon le premier janvier comme man di doon na nga koy seetaan fii ba max di daw ñu xool ba xam. la yàlla may woon bu ko nangoot incha allah rabbi soobee yàlla danañ ci yaan yàlla te yàlla danañ ñu ko may ñun duñu duñu waxantu daal waa xam nga wax ay sarax boo dëkkee ci réew mi réew moo xam ne sa taalibi mi ngi fi wala sa sëriñ mi fi sa ndey ne fi sa baay ne fi sa nijaay ne fi sa mag nekk fi sa rakk nekk fi sa soxna nekk fi sa doom nekk fi bu doon tàkk wala muy doonub doom kenn munta a rëcc sa benn famille du ñàkk sa benn famille bu ci bokku réew moom yow yaa war a njëkk jóg yow mi doon sëriñ bi boo amee sarax nga jël sab xaalis génne ko def ko bu ajee ñaan nga ñaan ngir mu am ndam parce que Sénégal boo amee ndam ñun ñëpp la amal ndam réew mépp la amal ndam sëriñ su ci man di wax di génn booy génn jëlal say engagement teg ko ci lu leer xam nga ñi nekk di génn di wax wala ñu waxi sarax sëriñ soocu aay nan de mën nañoo ñaan mais li problème mooy dañuy seet rek yem ci mais mbir mi bu fekkee da ngay yem ci seet kese di wax man nga yàlla mën naa dogal nga juum ci nekkul nañoo ñu xamuñu dara xam nañ dara de mais boo seetee gis la ngay gis avant match ba mën nañ ko détourner comme ni làmb mel leneen ak leneen mais nag su fekkee da nga cey seet di ca ñaan am nga sañ-sañu woowuloo sa xam-xam waxal moo tax ñun bu ñu wax rek day fekk na ñun dañ cee nekk di ci ñaan di ci def mais bu du woon lool duñ ci nekk di wax wala ñu wax score dañ ciy naatar yu bëree bëri ndax man ku ma xam-xam ne du amul image bu may génnee wala may woo benn site di waxtaan kaay ma ñaanal la wala am naa xam wala lii laay liggéey déedéet mus am waaw bu ma génnee ba wax rek at ba at daw comme nii ci Coupe d'Afrique bi wax naa te daaw bi ma ko defee ren nangu ma ko woon sax wax dëgg yàlla tollantiwaat def ndax site yu bari sàkku nañ ko te def ma ko te man du ma woo benn site wala may fay benn internet ngir muy jàllale sama xol lu jëm ci lool ndax ci réew mi lañ dëkk nag suñ bëkkee ci réew mi bokk ci réew mi wala ñoo ñaan Sénégal am ndam wala ñoo ñaan jàmm ci réew mi ndax Sénégal boo amee ndam mooy suñu jàmm ci réew mi kaf foo agré du leneen waaw loolu du xaaj du jeex parce que man mi ngay waxal nii rek euh, wax baaxul mais ñun ku ne gis na daaw Coupe d'Afrique bi yu bare bari yoo xam ne dañu ko doon def wala ay doon ay sëriñ ngir li ñu bari ñun ñu bari ñu ñuy contacter te duñu ne kaan ba di xëccoo te bëgg ñu ñaanal leen mais sunum réew moo ñu gën a lu mën di am ñun ñii rek bari na ñoo xam ne dañ ñuy woo di ñuy contacter li may wax ni ñu bari mën nañ ko seede ba ci ñu ñoo xam ne dañuy nekk Maroc wala suñuy taalibi ñoo xam ne sax dañuy jël engagement dajale alal ngir jox la ngir nga ñaanal réew moom a gaña ba ci coupe du monde bii jàll rek wax dëgg fa yàlla am na match yu bari yoo xam ne ñaanal nañ ci Maroc ñu bari ñoo xam ne ay doom fu la nekk foofu doon suñu taalibe ñeneen ak ñeneen ñu bëgg ñu ñaanal leen ngir ñu def ci waaw xëy na euh, loolu day am parce que àdduna ñëpp mënuñoo bokk jëmuwaay ni mu amee ñuy defar noonu la amee ñu ñu yàq Sénégal bu fekkoon ne amul ñuy yàq loonu fi taxawal lu nekk mën nañ ko mën nañ koo jël wax dëgg fa yàlla non dañ koy tal kaan bi dañ koy tal parce que maanaam jàmm la ak salaam rek li ma la wax léegi rek eh, sport la sport du dara fo la rek agré hmm, donte nag euh, doonulu nangam mais nekk loo xam ne day yàqal kenn yitteem parce que réew mi dañuy nekk ci jàmm dund ci leneen moo gën ñu dund ci fitna wala di xasante wala leneen luy ñëw te uh, coupe bi incha allah bu soobee yàlla kook dogalam 2024 dañ koy jëlee Abidjan indi ko Sénégal bu neexee yàlla kook dogalam la yàlla mayoon bu ko nanguwul te ñu fekkee ko te man ko te tal ko ñëpp ñaanal ñu incha allah rabbi soobee yàlla dañ ko waxee woon daaw danañ ko waxewaat noonu ci kàttanu suñu borom mu ñëw. réew mi lu bëri Sonko euh, yi moom danaa ci dalal ñu bari seen xel. man bu sonkoo jàlloon moom lay ñaanal ngir mu toog ci réew mi waaye mën naa am du jàll waaye bu jàllul ci kàttanu suñu borom ak dooram Amadou Ba laay mooy gañ réew mi bu neexee yàlla. Euh, waaw non non déedéet man ku ma xam ne wax dëgg yàlla bu dee ñi bokk ci état bi ñu bokkul ci état bi ay sëriñ leen fu nekk am nañ fay nit am nañ fay xarit amul sens ñuy wax xam nañ diw wala xamuñu diw mais dama la bu fekkoon ne sonkoo bokk na. man moom laay ñaanal te day gañ a réew mi waaye bu bokkut ama Amadou Ba lay ñaanal te ci kàttanu suñu borom ak dogalam mooy gañ réew mi te dadaa génn wax ñaata lay rawee ak ñaata xob lay rawee lu gën a leer loolu amul Amadou Ba mooy gañ élection yi bu Sonko amul. non loolu lépp amul sens ci kàttanu sa borom li ma leen wax dara du ko dindi waar mi ngi fi lépp mi ngi fi comme neex non non man ku ma xam xam ne nag wax dëgg fa yàlla su demee ba wax dara dañ koy teg fu leer daal ay waxi kasaw kasaw wala yi yooyu ku ma xam-xam ne uma jot googu te du ma génnee wax dëgg yàlla sama image lambul ci yooyu waaw mais li wér te moom mooy moom Amadou Ba bu Sonko jàllut danaa ko ñaanal te dana gëñ réew mi ci kàttanu suñu borom moom Amadou Ba te bu gëñee réew mi ba pare danaa génn def loo xam ne danaa ko wax loo am danaa ñaan pour Sénégal pour Touba am ko parce que Touba nag euh, dafa jot sëkk ak barke dama bëgg mu am aéroport international boo xam ne moom 2024 wala 2025 dañuy teg tegu xeer wi loolu na ko àdduna bépp bàyyi xel te xam ne day ñëw aéroport international Touba da ko war am am nañ hôpital bu mag am nañ lépp sapeur pompier benn moo nekk Touba dama bëgg bis bu gañee réew mi sapeur pompier yi gën ngaa gàtt ci Touba na doon ñeent ba juróom yoo xam ne war na fi war a man a ne parce que Touba ni mu toll. Euh, non aéroport incha allah bu soobee yàlla day am Touba dafa war a am Touba ak fu ñu ko mën di defee ca sorti baay yëpp bu soobee yàlla loolu kay amul nangam damay taxaw gisi amu Amadou Ba wax ko ah? mu doon président Sénégal ma toog wax ko ñu ñaan ko loolu dafa war a mën ne Touba dafa war a am lu ne am réew la du dëkk. waaw ci kàttanu suñ borom bu Sonko bokkul bu neexee yàllaa ko dogalam la yàlla mayoon bu gun nanguwut danaa ko ñaanal te dana gëñ réew mi ci jàmm ak salaam loolu moom lu ma leer la moom na tëblewu ma ko làmmatu ko amul kuy takk di xaaw wala kuy burus wala kuy yor kurus di ci man dara bu yàlla dogalee ci kàttanu suñu borom moom mi aji dogal waaw li may baaxee mbokk yi daal mooy réew mi nañu ñaan jàmm ñaan ci mbokki jullit yëpp jàmm ñaan ci mbokki taalibe yëpp jàmm ñaan nag mboolem fu ab jullit nekk mu am jàmm te ñu yéenante jàmm te jàmm ñu xam ne jàmm ci lépp xaj nit ñi nañu yéenante jàmm tey baalante àq tey rafetal suñ moroomu sëriñ sin ko ñañ a wax wala ñiy ñaan nañu xam ne li ñu yor lu lu foor la ñaan du méccam baadoo la noobul dëgg moo koy def fexeel ba li ngay def nga man ko boo mënee seet yemal ci seet boo mënee ci mocc bëñ yemal ci mocc bëñ boo mënee ci mocc bopp yemal ci mocc bopp su ko defee su boobaa da am jàmm foo nekk ñooña danañ am jàmm yow ci sa bopp danga am jàmm lu la nit sant loo mën defal loo mënul neel mënu ma ñaan képp kenn mënul lépp loo foo toll rek am na ku la raw loo man am na ku ko mënul loo mënul am na ku ko man eh. <laughs> <laughs> waaw xam nga ñun moom ñun amul lu ñu la yool ñun taalibe sëñ Tuubaa lan dañuy julli dañuy woor dañuy jaamu yàlla dañuy liggéey Sëriñ Saliou Mbacke ku ñu xam ci loolu nga ñu xam li may wax rek toujours fan yi ma gis gaa yi di ko jàllale ñun ku ñuy jàpp jàpp ñun ci ngir bëgg gën bëgg Sëriñ Saliou ndax heure bu xëyee day gën di dolli ku ñu jàpp ci leneen nag boo ci amee desection sama yoon nekku ci waaye ku may jàpp nag ma jàpp ci bëgg gi ma bëgg Sëriñ Saliou mu bir ne ma ne heure bu xëyee day dolli ko ku may jàpp jàpp ma ci loolu ku ma jàpp ci leneen nag boo ci amee déception loolu sa yëf yi bopp la waaye ñun ci lu leer la ni dox li ni dox moom day xam-xam yu lëndëm wala yu ñuul ak yu déedéet te xam-xam moom xaw ma bokku ci première xam-xam rek li ci ëpp solo mooy xam li ngay def nit bara ngay def dangay xam li ngay def xam-xam du caaxaan du lu ni foye du lu ndaw. waaw lu ñu ciy tëjee di dolli rek mooy fan yëpp doodoon naa ko waaj ak di ko wax muy loo xam ne. Euh, lu ma yàgg bëgg la muy sëriñu daara yi ne ci kaso yi di jàngare alxuraan nga xam ne dara bàyyiwu leen fa lu dul ay tuuma mbiru jigéen ay viol te bu ndee seet bu ndee téeméer la juróom-ñeent fukki juróom lañ leen di waxal dara du ci dëgg parce que viol nit ñi dañ koo jël ba diisal ko diisal koo xam ne ban ci wote loi bi ñu ciy wote ñun góor ñoo ci gën a sànku te ñun rek ñoo ciy loru te dafa mel ni jigéen ñu ci bari dañ ko jër ngir xeexe ko wala boog ñu ci bari ngir xeexe ko daara yi ak ñiy jàngale alxuraan léegi day dem ba boo daree jël sa doom yóbbu ko ci daara ngir mu jàng alxuraan da ngay tiit ne e kii waruma faa mën a yóbbu ndax li may dégg sëriñu daara yi nanga bu ma la nit ñi lislaam la ñuy xeex wala daara la ñuy xeex te ñi ciy tuumaal bu ñu demee ci kaso yi mën nañ fa am ñeenti at juróomi at bu leen àttee dañ leen di bàyyi wala ñu ne lañ leen doon toppee dara du ci dëgg te viole dafa nekk loo xam ne lu ñu war a seet seetaat la surtout ci kin koy jiiñ te dafa yomb lool parce que da ngay jàngal nit xale mu jékki-jékki yuuxu wala néegam laa génnee nangam ak i nangam sëriñu daara yi war nañu booloo booloo bu mat sëkk boo xam ne képp koo xam ne jingal lu mel noonu wala ñuy dem ci kaso yi di nemmiku ñooñu ak di leen seeti ak di leen xool ñi ci amul avocat ñu jëm leen a jëlal avocat ñin mën a lijjanti ñu leen ñu baleen te xam ne liñ leen ciy tuumaal lu ci baree baree bari dara du ci dëgg donte nag am na ñoo xam ne dañuy def waaye ña def bu nu amee du vir nañ ci ñoom ñoo def na leen tëj parce que viol duy caaxaan mais loi la boo xam ne buñ ko jógee ak léegi man ñi ma seetaan ñu naan dañuy xeex euh, ak ak yelleef xaw ma nag ak seen xeex yooyu dafa des parce que bu yàggul seetaan leen ñu taxaw ne weer yi xawma la ñu ngi fi wala naat nangami doomu aadama te boo taxawee ci tribunal ñi ni ji ñu viol ñu ngi ci àtt ña presque ñu ci baree bare ay cinq ans lañ leen di tëj six ans lu leen di tëjee ay tentative parce que li lay tàppale bu ndoo ko tàppalee mënoo mucc ci benn loolu lu jara seetaan la na ñu xam ne ñu ngi lor doomu aadama yi da gis ku ci bañ nit woo leen wala ngeen amu mirance nga jël ko sànk ko ci kaso bi ngir ay affaire jigéen di viol nan ba yooyu ngir jëmm yàlla man nag maa ngi waaj a taxawal association boo xam ne danu ko taxawal ngir xeex lépp loo xam ne sëriñ daara yu nekk ci kaso yi lay doon man nag jàngalewu ma daara yoruma daara laajuma kenn ndimbal bu ma kenn dox ndimbal sëriñu daara yi nan mànkoo ñoom ci seen jëmm li ñu def bu yàggul dem ci président Macky Sall ñuy dajee ci stade loolu nan ko nan ko bàyyi nan fexe foo xam ne dañ leen koy tabaxal ca Dakar heure bu ñu fa bëggee dem ñu dem fa dem fa ngir lu mel noonu di ko fa def te ci stade yi ñu def ñoo yor li gën a ci àdduna ku du ko jàngale alxuraan yemante ku du jàngale alxuraan ko bokkulul métier yaa ko gën métier nañu gën a góorgóorlu ñoom te bàyyi loolu xel bu baax baax a baax te ñu taxaw ci ñun nag danañ ci taxaw ànd ceeki avocat ànd kee ci nit ànd ceeg ñu baree bari ñoo xam ne danañ xeex àq ak yelleefu doomu aadama waaye ñu ngi ko jëmale ci sëriñu daara ñi niiw doole am na ci ñoo xam ne ay at ñu ngi ci kaso yi kenn attewu leen ci ay viol yu ñàkk fayda dara du ci dëgg parce que réew moo xam ne jigéen ñi ñoo gën a sàggan góor ñi gën leen a bon suñu wax viol war a tentative ci ñoom lay njëkke dañuy sol lu bon wala ñu seet si la sol lu bon wala ñuy wax lu bon wala ñu lay vidéo di la enregistré yu ne ñu ciy dugg mais loi boobu ba mu jógee ba léegi seet na na presque dañ ci toroxal góor lu ci nit ñi war a wax la nag nañ ci bàyyi xel man surtout côté bi ma gën a fooral mooy sëriñu daara yi alxuraan yi loolu doo nga leen fittee te lu ci baree baree baree dara du ci dëgg ndax doo ma sa gis sëriñu daara buñ ci àtt tëj la vingt ans wala nangam waaw télé yi sawar ci lool rajo yi sawar ci ñoom ci seen i revue de presse ak seen journal day mel ne dañuy sawar ci sëriñu daara daa def nangam ñu xëy ba waxtaane ko wala dañ koy jàllale sax journal wala ñu def ko revue de presse sëriñu daara ba tëdd na viol yu mel noonu rek lañ yàkkamti Sénégal nañ gën a bàyyi xel lool te jox wàcc waaye sëriñu daara yi te bàyyi leen xel waaw bu baax a baax loolu rek moo ci ëpp solo ñun danañ ci gën a waxtaanaat waxtaan wu gën a yaatu parce que ñu ngi ci waxtaan ak ay boroomi xam-xam ak ñoo xam ne ngi bokk ci état bi ñeneen ak ñeneen ñu seet ñu jàppalee mbooleem ñu ne kaso yi doon ay sëriñu daara ñun àtte ba pare ñu bàyyi leen ñun bëjeegut bu nee na bàyyi mënta bàyyi suñu teg leen di bara sa bàyyi leen parce que am na loo xam ne daal wax dëgg fa yàlla euh, rafetul rawatina réew mu mel ne Sénégal te président Macky Sall xam naa ne ni ko sëriñ daara yi doon waxee ci keroog ci seen ndaje mi ni mu war a demee demewut noonu mais lii rek la demee ñu ci bari dañ leen tuumaal wallahi lancem dara du ci dëgg te jigéen ñi léegi dañ koo jël arme ñaari ban ñett ñu ne viol su la munta jot sax dañuy jël keneen jël ko ci yow ay at nit ki nekk ko ci kasu bi loolu dafa metti nañ ko bàyyi xel waaw bu ko defee nag euh, ñuy jaajëfal ñëpp danañ ci gën a ñëwaat di leen sant di leen gërëm yéen site bi ngeen xam ne yéen tey yéen a fi ñëw man nee naa woon diituma génn di wax ci yu mel nii waaye nag nañu xam ne sant naa leen gërëm naa leen wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu Thank you.